Quiero, yo voy a tu mbokk yi ñu ngi écrit Grand Dakar ki ñu toogal nag légende la ci làmb duñ ko présenté kenn tafaabooy Boy Bambara mbër nuyu naa la. waa Cheikh bi maa lay ziar di la jox sa waay di wax ne bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yeneen mi di sant sunu ñaari waajur di remercier population Grand Dakar NGB bi yëpp ndax su ma limee damay juum mais mën naa ne euh, fi ma dëkk nii euh, muy ci digg xolu Grand Dakar. ñuy remercier waa Taïba Grand Dakar di remercier waa Zona di remercier waa ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie fépp ba zone waagu ñaay bi zone zone zone bi yëpp zone huit bi yëpp ñu ngi leen di euh, nuyu daal di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni seen doom a ngi nii bisimilah. mais Tafa man damaa foog ne Tafa jeexal na ci làmb mais li ma fekk nga liggéey tey xam naa ne bu léegi yaa ngi ci biir làmb. non non man fi ñu toog nii defaguma dara. man defaguma dara actuellement nii booy xool lii may def nii ci échauffement laa nekk ah. damay échauffé wu nii rek waaw loolu laay def nii mais defuma dara fi ñu toll nii barki Mouhamadou Rasulullah ah. billaay ma dara. li ma la fekk nga def nii tey loolu ngay def chaque jour. chaque jour déggoo lu ma la wax ñoom ñii di préparer fii nekk ci ay da nga leen di laaj man ak ñoom ñooy runkung daje fii chaque jour waaw parce que ku ci am combat fii tous les éléments ñëpp dañuy taxaw soo jugee ci kii dal ci kii boo jugee ci kii dal ci kii waaw bépp ñoom ñëpp ngay jàppal ko déggoo ma lax ñoom ñëpp parce que suñuy rakk lañ dañ leen war a jàppale dañ leen war a jàppale xam nga parce que comme ñun ñooy mag fii ci écrit bi jiitu leen ci néeg bu lëndëm bi dañ leen war a wan fi ñuy toog war leen wan fi ñuy taxawoo li nekk ci suñu bopp te suñuy papa ak suñuy mag def ko ci ñun xam nga ñu def ko ci ñoom tamit ñoom quoi. Euh, wax wax nga ko sànq yaa ngi ci làmb ba léegi mais adversaire yi nekk sa kanam soo ma doon soo ma la doon limal. bëri na ñu ma samay moroom rek parce que mën naa ne am na ñoo xam ni. dégg naa barki démb ne sam salon laa yor bëgg naa cee invité ñu bari. waaye déggoo li ma la damaa yor salle de bain ak lépp dama ko clim ba mu kii parce que xam naa ne bu tàngee gars yi duñ dugg waaw parce que li may xalaat rek mais njar mi ma doon wax mooy njarum xeme meeg buraas bi léegi dama koy def njarum meew def ci suukar ba mu saf saf waaw pour gars yi waaw pour gars yi mën a ñëw naan si ko quoi <laughs> waaw waaw parce que xam nga njar mee xawoon na weex moom la gars yi doon kii quoi. waaw ndax yaa ngi ma doon dóorloo léegi ay sado ndax ñu gisee lii dinañ ne Tapha mii kat. waaw lu kuuñagul de. waaw kuuñagul de non man bu ma kuuñee sax moytul samay loxo. waaw. mais adversaire yi damaa waxtaan ak Cheikh Niang barki démb mu ne ma maag Tapha Boy Bambara am na fu ñu jaar joxoon nañ ko sama avance mu delloo ko. déggoo la ma ma Tafa Boy Bambara tapet la dañ koo jox sama avance. ma wax la leen. ma woo la téléphone mu confirmer ko. barki Mouhamadou Rasulullah laa lay waatal. Eh, Boy Bambara ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci fen yaa ngi dégg li ma la man sama avance ah musta tegu sama loxo dama daan ñëw rek ñu ne ma am nga komba xaw ma du ma xam sax mbër mi bi may bëree ay Macha Ferreira ay Birahim 2 damaa dem ba stade Iba Mar Ipo euh, père Ipo Ngare di yuuxu ne ah combat yi da xool li ngeen i monté. yaa ngi dégg li ma la kon man aw may aw ma ay problème mu kii noonu man lu ma yóbbu ngéwél rek laay wër waaw day doomi géwél mooy doomi géwél <laughs> daw lu saf mooy loolu gis nga Cheikh Niang loolu muy wax noonu xëy na dafa bëgg mais su bëggee ma accueillir ko nee naa leen déggul ma man maa leen. jili mbay lañ déggul ma lax eh. wuyu ma jili mbay jili mbay. waa léegi rek jili mu bëri jili. waa léegi ma wax la leen kuy wut fu mu fanaan ak kuy wut ku ko wéetali ñaar ñooñu lu leen di boole. Baye Ndiaye yaa ngi may dégg Alburax production combat ngi nii Cheikh Niang dafa booy bambara. Cheikh Niang bu ma jëlee dootul doon géwél du doon géwél pire dañuy wër après kan mooy géwél pire. parce que Cheikh Niang Cheikh Niang Tafa Gueye doy lan doon wax Cheikh Niang Tarbaxa mais Tarbaxa dafa mel ni dafa dafa dafa dafa jëli dafa jëli beneen booy. waaw Ousmane bay jëli na beneen booy quoi waaw jëli na beneen booy defe na muy kan Modou Xarañ Lo. tey aboo fii ba tey rek. bëri nga ak Modou Lo. Cheikh Niang bëri na ak Modou Lo. waaye déggoo li ma la ba tey nee naa ko bisimilah gan dañ koy accueillir nee naa ko bisimilah. Cheikh Niang moom du gan ci lamb. waaw dafa ne moom pour. ganu gan moom moo tax moom. loxo yu dégg tubaab démb bi nga may bi nga may woo. bi nga may woo. waaw dafa toog mu ne. naa toog ci média bi ne ne naa ko laaj moom. léegi man dinaa ko may ci njëkk. ne ko Cheikh. kaay dimbali ma rek ñu ñëw ñu bëri. <laughs> billaay bu lekkee sama avance dootul lekk. dafa mel ni yow yaa xiif Cheikh. déggoo li ma la moo ma gënal moo ma daqal kii nu mu tuddati jaaykatu maafe bu bees bi ban Moussa Maafe la ma daqal la kook nga naan ma la yow am ah, mosoo lekk maafe bu am ginaar maafe bu fii lay xewee Grand Dakar non boo ñëwee fii da ngay am na lépp fii Grand Dakar am na lépp ah, gis nga sa bët démb ci épon presse avant su Cheikh Niang moo la gënal maafe bu am ma la gër gër gër gër Grand Dakar déggoo ma la Grand Dakar Grand Dakar am na lépp démb yow yaa ci teg sa bët. fii ci open open press yëngu na. waxuma la 100 pour cent Grand Dakar de. Hmm? mais ñun famille de Grand Dakar la hmm. famille. Hmm. ñun c'est la famille ñun ñëpp benn lañ. waaw ñun déggalu ma la na gars yi génn rek ñu yëngal ci kaw ñun ñu yëngal ci suuf te dimanche incha allah ci kàttanu yàlla noonu lay demee ne supporters yi ñëw en masse doomu Grand Dakar yëpp ñu ngi leen di ñaan. ñu génn ñëw jàppale seen rak seen doom waaye déggoo la ma la waaye déggoo la ma ñun dañoo ñun fi ñu toll nii dañoo am dañoo am ñeent juróomi loxo yoo xam ne dañ ko war a teggi ay natt ñun dañoo dañoo am ay alamaan yoo xam ne dañ ko war a fay waaw yàlla nañu yàlla sunu borom yóbbu ci bés bi ci yàlla ñun sunu rakk yooyu yëpp muy Pam Ndoy muy Lagrose muy cuuc muy njaxas gi muy ñëpp rëg rëg ñoom ñëpp ay dafa euh, leer ñëpp yaa ngi dégg kon xam nga ni combat yi ay ñoom jeex ñoom ñëpp yàlla suñu borom may leen dam waaw <laughs> mais mais mais sànq dañu nekkoon ci Cheikh Niang mais bu Cheikh Niang parewul keneen keneen keneen ko soxla waay ah, dëgg ah, aboo loolu baaxul si tam oh. diis na ci moom déggoo ma de eh, loolu pepesu la pepesu pepesu sirta na ci yow alab lébu pepesu la kooku dama koy pepesul <laughs> waaw pepesu laa koy toggal Cheikh damay wut jënd yoosi yi laa koy wut rek. waaye déggoo lu ma la. Baba Jaxal mu ngi fi. Baba Jaxal mu ngi fi. Ibu Afia Aliou déggoo lu ma la xaadim ki ne ubbi naa samay bunt. taal taalal leen lampe taalal leen clim tegal leen salon. defal leen njarum soow daaw dafatuma ci dara léegi dama koy suukar rek. waaw xorom pol ak naana rek jox leen ñu naan mais nag booy ñoo nangul dugg. mais est-ce que loolu du ay dil quoi. dil booy ñoo est-ce que booy ñi ma yow ñi ngay wax ni kuñ ci seeti kuñ ci seeti nii yow yaa ma tooñ sax yow ma dóorloo ay sado nii quoi ndax booy buñ gisee duñ jël. mais mais mais mais. non léegi bàyyi naa dóore bàyyi naa dóore léegi parce que làmb ji léegi booy dóore dañ lay kii dañ lay daw léegi bàyyil may mbapat rek ma def ko ala rëg rek dajala rek. mais démb damaa gis nga faas lu neex. waaye déggoo li ma la ñun démb la ñuy fecc te xoolal bu dimanche oh, yow ma wax la leen. dañuy dañ maanaam dañuy spectacle mais gis nga ma wax la leen làmb dëgg amateur bu toogee ci kaw tribune nga jóge fële faas boo faasee rek ñoom dañuy kontaan ñi xam làmb boo tuusee rek mais léegi xam nga yaa ma gën a xam ambiance waaw loolu loolu moo fi kii quoi ta xam nga xorom yàqul cin quoi loolu ci la waaw tantaan gin da uran tan gin gin da uran tan gin gin da uran loolu léegi dégg mi sax ndeer mi sax doo ko dégg ah? ah waaw ndeer mi sax doo ko dégg te bu njëkk ba ndeer mee daan tan tan tan tan tan tan tan tan uran ta gin gin sa uran ah léegi ah nga dégg talmat mi rëg ta gid da uran ta gid da uran ah waaw waaye déggoo la ma la xoolal bis bu Tafa ñëwaatee ma wax la xoolal retrouvaille laa lay indil Bamba Bamba retrouvaille ndax xoolal <laughs> xam nga dafa am ñoo xam ne tey jii tey jii euh, bu ñu nee combat Tapha Boy Bambara d'accord ñëpp a ngi ci suñu ginnaaw mais dafa am amateur yoo xam ne toujours arena boo gisee mu fees rek amateur yi ñoo ñëw ndax bu boobaa ñañu boole ñoo tax ñuy seetaan si làmb